ñun nag ay jullit lañu bi suuf la na kan ak kan la kaaw kuutee moo nu woon ginnaaw fu mu nga jóge Dalifort moo kan caatu Daouda Fall fu mu école yi Balla kuy magam les deux kuy magam ba Balla Gaye 2 kuy magam ki nga ne mooy Lamine Golo kum doon Daawuda Fall yal na ko yàlla yërëm waaye mi ngi seq ku ndaanaan dëgg-dëgg kaaw Gourdin Mbarum Tombe Seen laa ilaha illa ana daan nga dégg Tombe Seen Tombe Seen waaw jamonooy Alaaji Moustapha Ndiaye RTS Lamine lu xew ana film ba mbaa roof nga micro ay Lamine la jàll neex na Lamine la rëcc doon a ah, jàll na waaw ñu ngay lewaatoo moom caatu Daouda Fall dañoo bokk na tournoi kan la mujjee bëree caat caat Daouda Fall albarka kay la eh kaaw xeex na jëli kaaw xeex na jëli kaaw takk na ko kaaw daa bëgg a bëri ci boppam moobu na ko da koy sukkar bi da koy daan dina ko daan xale ba bañ na eh bare bu ko dee dina ko daan de xale ba eh, kaaw kaaw daa bëgg bëri ak moom rëpp nañu. Ah. ñu ngay raam. Ah. ñu ngay raam. ñu ngay raam. jeexagul lu xew. jeexagul ca biti. jeexagul dina ko daan. wala la ah. dara xewagul. la ilaha xoolal ma bii combat. toppal ma lii Lamine. lii lan la Babacar. parce que Kaaw lii moo baax ci moom ci combat. bëre la war a def moo war a bëre. Kaaw daa war a bëre. moo war a bëre bëre bi. parce que nag bu dégloo du baax ci moom. xoolal Lamine góor la Babacar. Lamine daa mel ni ku waaru. xoolal Lamine Babacar Lamine da ngay yooxu. Lamine a ngay yooxu. Babacar Lamine waaru na. Lamine Kolo nee na ko eh arbitre soufflé tina. mais Babacar booy bi champion la. Thiat Daouda Fall. champion la Babacar. su ko Kaw Gourdin yegg ku fa daan la. su ko fa yeggoon daan ko. fa mu ko yegg sori lool Lamine. su ko fa yeggoon daan ko. maa xam loolu yow rek ci bëre. waaye faq maa ni Babacar. ana ñu. ña nga états ñibbisi leen. ñoom Ramadaan. Ramadaan day mu nga toog ñoom Ramadaan. Ramadaan foo nekk ci États-Unis Boy Bawal. Boy Bawal ñoo ko gunge woon aéroport ma ak yow. waaw jël ko jëlaat na ko mu bañ mu bañ. kaawu. eh ngay xeex moom de. ñamante nañu de. caat. eh moytul caat. Kaaw daa am expérience bu bëre mu ngay xeex ak moom Kaaw a ngi koy dóor a ngi koy dóor. wuyaay daan na ko daan na ko. Oh! duma na ko daan na ko duma na ko daan na ko nee na ko ca duma daan duma daan duma na ko. duma na ko daan na ko duma na ko daan na ko ay Kaw Gourdin laa ilaha illallah bëri ci kawam da ko humilier bu ko seetaanoon ñu daan ko seetaanu ko bu ko seetaanoon daanu seetaanu ko jàng na ko jàng na ko billaay daa bëri moom champion la Babacar Kaw Gourdin wax naa la ko teel nga ko wax sunu lam nga ne mooy favori wallaay waxoon naa ko Lamine waxoon nga ko démb bu ma waxi caaxaan la nga ne mooy favori parce fi ma ko tegoon fii la def na exploit expérience bu mu la ko andil bettu a kaw damay bëre sa kaw daan na ko ba daa tiital xale bi ci bëre wala Lamine Golo tiital ko ci xeex Golo ndeysaan ñëppam la xoolal nee na def ndànk ñoom ñaari ñu nuyoo lii moo ko war Babacar wax na gis nga wax na dëgg gis nga wax na dëgg cey kaaw gourdin def naa affaire nii lañ koy bàyyi dafa mën a bëre ca daara Fall li mu li mooy li mu fecca bari gaaw gaaw gaaw du moog booy yi du moog booy yi gaaw du moog booy yi doo seen morom yaa ñoom Babacar moom Babacar waxoon rendez-vous ñëw leen sama kër ñu waxtaan ñu yaatal lu bari daam lu xew maam jaara ñëw leen kër ga ñu yaatal tamit Habib dama ko waxoon démb ci sunu làmb Ablaye Dieye woo ma laaj ma ci combat bi ma ne ko Kaw Gourdin mooy favori waaye dama ko koy jox légèrement ndax dañoo bokk tournoi mu am ñaari victoire xale bi am ñaari victoire waaye Kaaw li ma ko defee woon favori mooy moo expérience su làmb te wane na ko tey parce que nag dégluwul xale bi taa bëri ci kawam xeex ak moom ci kawam boo xoolee loolu ma feeñ ci combat bi kon defe naa ne expérience am utiliser na ko. maanaam lim ko jiitoo mbapat meeg lépp feeñ na ndax kaaw moo contrôlé bëre bi moo contrôlé xeex bi moo daan xale bi kon Kaw Gourdin nañ ko bàyyi xel daa bokk ci làmb il est mën a bëre lool xam li muy def lamin suba incha allahu rabi leen ko jaawale bu ko fàtte Equivox Lit TV Papa Sow